di rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi di ci gën a fës taw bi wàcc ci Sénégal indi ay gàllankoor ci bërëb yu ci mel ni Fatick yoon wi dox diggante njas Ndiasmone ak Ndangaan dagg yàqu-yàqu yu bëri jëwriñ bu njëkk Aminata Touré jàll ji fa fa ñàkk bakkanam ay mbokkam ba noppi baaxee askan wa ndimbal ak i jumtuwaay feneen fu njiitu jëwriñ yi àgg caajaay Fissel Mbadaan foofee itam ñetti nit ñàkkoon nañ ci taw yu metti gi Aminata Touré dalal na xelu askan wa sàkku ci ñu yore liggéey ba ñu gën a farlu ngir yokk kaaraange askan wa jamono yi bër yenn ci ndongo yi di wéy di sàkku xam-xam ci ndimbalul jàngalekat yi fu ci mel ni lii lycée Thierno Seydou Nourou Tall ndongo yi bëri nañ fu ne la ñu jugee ñenn ñi sax dañuy bàyyeekoo ci ay bërëb ci fii ci Sénégal ñëw Ndakaaru ngir sàkku si xam-xam danoo bëgg nee ñu bu école tijjee ñu gën a mën a farlu xibaaru tàggat yaram yi la ñuy yaatal gi nes tuut la dal leen ak jàmm ci xibaaru diggu ba bëccëg gi ñu doore ko ak ndox mi fi wàccoon ci bërëb yu bëri fii ci Sénégal indi woon ay euh, gàllankoor fu ci mel ni caajaay Fissel Mbadaan jàpp leen ña nga ca diwaanu cees euh, foofe ñu xamle woon ne musiba am na euh, ca booba bërëb ndax ñetti doomu aadama ñàkkoon nañu seen bakkan loolee tax na jëwriñ bu njëkk Aminata Touré bi ñu ko falee mu daal di fay egg masawu ji askan wa du Diop nekk ci ligne bi mu ma du ngi lay nuyu. Euh, soxna Fatou maa ngi lay fay. Mamadou ginnaaw euh, loole euh, mu def maanaam jaale askan wa lan la ñu mën a jàppaat ci ñëw Aminata ture foofee ca caa jaay Caajaay Fissel Mbadaan diwaanu cees foofu daal li mën a jàpp wi di xaar bu baax a baax ñu indi leen ay ndimbal. ndax li nga xam ne moo nekk yoon woowu nga xam ne moo dox diggante fi seen mbaadaan ak euh, fi ngi di caajaay xam nga foofu ñetti nit ñoo ñàkkoon seen bakkan gannaaw ba seen oto labee ci biir ndox mi ci loolu nag li nga xam ne nag mooy jaar jaar yi ak taw yu métti yi nga xam ne ci jamono yi ñoo ngi fay wàcc askan wi kat di sàkku ñu defaral leen bu baax a baax lu jëm ci wàllu yoon woowu loolu sax euh, am ki nga xam ne mooy jëwriñ ju njëkk ji wax na ko technicien Ageroute yi nga xam ne ñoo defaroon euh, bërëb bi ndax ñoom yoon wi kat ni ñu ko defaree baaxul moo tax mu ne leen lu mu gaaw gaaw bu ñu xaar nawet bi jeex dara nañu fexe ba dal ci kawam defaraat yoon wi ndax daal li ko gën a yitteel mooy sécurité askan wi nga xam ne ñoom ñoo jël yoon woowu indi na nag njàqare ndaxte nag ci biir caajaay ak li ko wër ñi nga xam ne daal ñoo ngi fay jaar su fekkee ne taw yi am na soxna Fatou dañuy am jafe yu mag ndax ñoom nee nañu daal li nga xam ne moo amoon ci jamono yooyu du ñàkk moom mooy amaat ki nga xam ne mooy meeru caajaay bi moom i tamit dalaloon soxna si li nga xam ne it moo ko gën a yitteel mooy ndox yi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër yi ndax ba léegi jamono yi nga xam ñuy wax ni juróom-benni famille jëlee nañu leen ci kër yi yóbbu leen ci école yi loolu nag indi jafe-jafe yu méttee métti naam ci ñenn ñi seen ndox yi dellu na waaye nag seen kër yi dañoo xar xar xar yu metti yoo xam ne tax na ba kii di meeru Caajaay ne amul benn kaaraange kon mu yaakaar ni daal ñi nga xam ne ñoo ko ci war a jàppale dinañ ko ci jàppale li sax moo jëm ci wàllu woowu yi tamit ñu déclenché lu jëm ci wàllu plan Orsec plan Orsec bi kat gouverneur bu Thiès démb bi Aminata Touré euh, ñibbee euh, euh, këram moom nag la ñëw fii ci diwaanu Mbour lancé lu jëm ci wàllu plan Orsec bi bi on ORSEC bi nag dina jar lu toll ci juróomi té juróomi téeméer ak fanweer ci ay millions suñu xaalis loo xam ne dañ ko defar ci defaraat waaye ñi tamit jëla ndox mi ci bërëb yi nga xam ne moom moo tax rawatina ci Joal Fadiouth fi nga xam ne kër yu bëree bëri quartier ñoo ngi biir euh, ndox mi te ñi nga xam ne comité de crise bi bi ñu jokkoo ak ñoom nee nañu ñoom amuñu benn moyen ndax moto pompe yi fa nekk daanaka xaaj bi fànn na kon war nañ leen gaaw a jàppale ba lépp lu jëm ci wàllu ndox yi ñu génnee ko ndax ci dëkk boobu di Joal Fadiouth juróom-ñaari famille yi tamit génnee nañu leen seen kër yóbbu leen école yi soxna Fatou ñu jàpp ne daal mbir yi doy na waar lool te ñuy xaar ci premier ministre jaar bi mu fi jaaroon mu gaaw leen taxawu gën leen dimbale ngir ñu seen nekkin daal gën a ñoŋ jëm ci kanam soxna Fatou. Mamadou Diop ñu koy jaajëfal mu doon àddoo fële diggante caajaay Fissel Mbadane ni ñu leen ko waxee njiitu jëwriñ yi Aminata Touré ba nu ko falee dafa yegg ni ko Mamadou Diop waxee sànq benn woto moom moo fa laboon daanaka ñetti nit dal di ñàkk seen mu ñu yor liggéey bi ñu gën a farlu ngir yokk kaaraange woowee askan feneen fu njiitu jëriñ bi euh, àgg moom Aminata Touré euh, di ca diwaanu Fatick diggante njos Ndiosmone ak Ndangaan jege dara euh, fi nga xam ne moom mooy jilaas foofee nag ni ñu ko waxee woon itam taw yi fekkoon na taxoon na ba benn doomu aadama ñàkk ci bakkanam Aminata ture jaalewaat beneen njaboot jàppale askan wi ñu ne nag ay ndimbal Aminata Goudiaby teewal rajo Futurs Médias ca diwaanu Fatick nekk ci ligne bi Aminata nuyu naa la. Euh, maa ngi lay fay Fatou ni ko ah. mhm. Mhm, ginnaaw euh, ndimbal loolee nga ni toll na ci ñaar fukki million leneen lu ñu mën a jàpp ci ñëwub Aminata Touré foofee euh, ca diwaanu Fatick rawatina diggante Ndiosmone ak Ndangaan ndax yoon wa dafa daggoon ci taw yu métti yi. waaw noonu ni nga ko waxee sax noonu la ndaxte démb ci àllarba ji la jëruñ ju njëkk ji Aminata Touré ñëw ci diwaanu Fatick dem na nag ci Djilass ak moom foofu ni ñu ko waxee noonu la yoon yi dañu daggoon ci taw yu métti yi nga xam ni ñoom ñoo fi waddoon samedi ba la ñu weesu Aminata Touré nag ay euh, ay jumtuwaayu nëgandiku la digle ngir rek ñu mën a euh, soulager askan bi ci euh, gox yooyu di euh, Ndiofmone ak Djilas waaye itam daañu fa séddale nañu daañu fa séddale ay dundu ak itam matelas ci ci ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ci ndox mu bëri moomu xaalis bi nag buñ ko xayma toll na ci ñaar fukki millions waaye nag ki nga xam ne moo di directeur général bu Ageroute moom nag wax na ni ci visite boobu la wax ni daañu teg ci fan yi di ñëw ay bus métallique maanaam ay xeeti kaw tali bi gën a yembal dem beeg dikk bi ci euh, Ndiosmone euh, nga xam ni ci route nationale 1 bi la nekkee moom Omar Sy nag nee na loolu dana tax ba dem beeg dikk bi gën a yomb fàttali liñ mën a jàpp ci euh, visitu ministre Amina premier ministre Aminata Touré moo di moom ñëwul woon moom kese ndax àndoon naa ministre bi nga xam ne moom moo yor wàllu inondation yi di Khadim Diop ministre de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo ak ministre bi yor forces armées di Augustin Tine Fatick loolu la ñu mën a wax ci premier moom la Aminata démb ci Fatick. Aminata Goudiaby ñu lay jaajëfal ci euh, yooyee leeral ñu wéy wax euh, ci taw bi ni ngeen ko xamee tey jii fii ci Ndakaaru euh, mu taw taw bi nag mi ngi tàmbali bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee dem na ba jàpp maanaam fukki waxtu ak benn ci suba météo xamle woon ne nag taw yooyee dina bëri bës yi ñuy wéy di xelal dalal xelu askan wi ci yooyee taw waaye it di xamle ne dinañu wéy ba tey ñu wéy ba tey ci taw yi xam ngeen ne bu tawee fu ci mel ni banlieue bu ndakaaru jafe-jafe day am rawatina ci dem beek dikk bi fu ci mel ni caaro yi tari Jàll moom dem beek dikk bi dafa xawoon na ami gàllankoor jënd ak njaay naka noonu loolee day indi lay jafe-jafe askan wa nekk ca boobee diwaan leeral yi Nafisatu Silla Jaafara Ba Caaroy Tali Jàll di ab koñ goo xamante ne rek saa yu tawee ñu dëkk ci ay jafe-jafe loolu nag tax askan wa fay yeewoo daal di ut ay pexe. ndox mi fii la commencé ci station bi nii mi ngi dem ba croisement ba fii yëpp dañ ko baare fii yëpp parce que lan moo tax ñu ñooy baare tali bi parce que suñ ko baarewul oto yi ak tataay yi dañuy ñëw vitesse ci biir ndox mi mu dugg ci biir kër yi. bu defee nag ñun ñu am ay problème di génn di ngàcc affaire yooyu suñu bunt kër dañ ko baare. dañuy foog ne xale yi dañuy réew pour baare bi te du réew sax dañoo jaaxle rek. génn dem ci bitig bi jënd sax mënuñu ko sonn nañu lool. créer ay ay ay rigole yoo xam ne ndox mi bu ñëwee dafay jàll moo gën oto yi ñuy ñëw di ñu pompal ñu on a pas besoin de ces soxlawuñ ko sax te gouvernement bi war na taxaw mairie bi aussi war na ñëw taxaw. yàlla xam na ne amul pompe bu baax pompe bi fil de fer lañ ko takkee nañ ñëw ñu wan ko ko fii fii dara baaxu fi sonn nañ am nañ ay problème fu mu toll nii maa ngi nii bu ñu bëggee liggéey dañuy xuus si ndox mi jël oto dem liggéey. bu ñu wàccee tamit kasaal li ko la ñuy defaat. situation boobee sax jur na ay yàqu-yàqu ci wàllum koom gi lépp luy njënd ak njaay dafa taxaw jamono ji ay père de famille ñoo ubbi fii seen magasin conteneurs yi fi ñëw démb jàlluñu dañ leen bëgg a retourné mais kooku ay millions ay millions ay millions yoo xam ne ci ay bis yoo xam ne économie caaro bi si boppam la bloqué. temps yi moom sonn nañ trop waaw d'habitude on faisait 7000 à 6000 litres mais maintenant on parvient même pas à faire 1000 waaw on le fait difficilement waaw boobu ba léegi ça fait pratiquement 48 heures xam ne dañuy taxaw rek on reste pendant 10 à 15 minutes sans voir de voiture waaw amuñu dara lu jaay fu ne liggéey bi yàqu oto yi day ñëw gaare du ñu mën a dem. li aju ci dem ak dikk bi tamit naki noonu lépp taxaw ba tax way jëfandiku yi daal di ut beneen pexe donte sax neexu leen wante dawalkati sareti ñoom ñu ngi ciy am dara. da ngay teg si mbedd suuf yi yaa nga jaar Jumaay Moustapha Guèye génn ji nële police ba wala nga jaare nii jaar ah, ah, gendarmerie ba génn ji nële soog di mën a dem. depuis 11 heures ñoo yoon bi mais mënuñoo jàll parce ndox maa ngi nii te oto yi nag dañoo ñëw soo sareet lañ mujj jël ñu ñuy wax ay deux cent kenn xamul. te de li ñu laay yëgale fii dañuy jumaa yi ñaar fukk pour ñu teel dem marché teel taal teel a yàq xam nga lii du yoon dafa metti te ay jigéen ñi ay jigéen dafa metti si ñoom bu ñu sonoon ndox mi dafay jógee daal te yàlla tax sonnoon trop. Caaroy Tali Diallo nekk na koñ bu siw ndax turam waaye ci biir nawet bi dina jafe loolu ñu xàmmee ko askan wa fay yeewoo nag tey jii ñi ñaan kii di gouvernement bi mu tegal leen plan d'urgence Nafisatou Sylla bu nu jógee Tali Diallo dañuy jàll ci beneen diwaan Kër Mbay faal foofe askan wa mer ba futu ne nag bu nu sàgganul du ñu fay seeni facture kuran lu ko waral ñu ne nag euh, foofe courant bi daal ay bës yu baree ngi nii maanaam amuñu ko dem beeg dikk xuy kamaj da leen sonal euh, ñu ne dañ ci nar rax leneen maanaam daal di taxawal dem beeg dikk bi ci yoon wi rawatina ca national 1 ba ñu teewlu ñenn ci ñoom seeni kàddu ñu ngi ko dénk Ousseynou Thiam Bira li ñu bëgg lu simple la ñu équiper ñu poste électrique bi moyen tension parce que poste génie civil bi soxla wuñ ko jëriñoo ñu dara parce que génie civil bi matu sax un million. ñu sampal ñuy poteau aussi defal ñuy fil parce que peut-être que di ngeen ko xool léegi yenn fii li sax à hauteur d'homme lay nekk xale yi dañ koy mën a laal léegi comme loolu yëpp kii nañ ko. Euh, ba sës mënuñ ci dara moo waral tey ñu def point de presse bi buñ ci paree dinañu gisee. ak euh, ki nga xam ne mooy ministre de l' énergie. li d' accordul ak Senelec mooy que tension bi bu fekkee baaxul waruñoo poser compteur bi ñun amuñu satisfaction ci courant bi donc contra ba ñu am ak Senelec kenn mënatu ci wax euh, contrat boobu dañ koy jël boxoñ sànni ci bal bi donc bi bimestre bii di jot dañuy xaar ba gis fi agence Senelec bu ñëw taxawaal ba jox ñu euh, facture d' électricité du ñu fay benn facture. bu ñu fayul facture rencontré grand sériñ ñi ñuy wax ñëpp autorité yi bu fekkee dara jógewu ci. danañ bloqué autoroute à bi ak route nationale ni ñu leen ko waxee woon ci boppu xibaar yi jamonoy vacances la nekk ndongo yu bëri tooguñu ci kër yi wala ñu dem ci plage yi di fo ñoom dañuy dem ci daara yi di jàngi fu ci mel ni eh, lycée Thierno Seydou Nourou Tall ndongo yi ñu ngay wéy di jàng si di sàkku xam-xam ci ndimbalul jàngalekat yi ñu ni sax ñenn ci ndongo yi lekk-lekk dañuy bàyyeekoo ci bërëb yu sori ngir ñëw foofee di sàkku si xam-xam leeral yi Ibrahima Juma Ba Xaali barab bu dal boole ci di yëngu yenn saay ay classe yu fees fii ci lycée Seydou Nourou Tall cours de vacances cosaan la fi daanaka. xam nañu ko euh, fii ci Sénégal euh, ci école publique quantum horaire bi kenn du ko atteindre toujours day am ay débrayage day am ay grève donc et am na ay niveau yoo xam ni programme bi dafa dafa gudd et certains collègues n'arrivent pas tellement à terminer leur programme donc euh, pour éviter que pour ñu bañ. que élèves yi di jàll ci classe yu kawe yi amee ay lacunes ah donc euh, dañuy décider vacances yi au lieu que ñu bàyyi xale yi ñuy traîner wala ñuy def leneen ñu ñëw ci école bi pour renforcer leur capacité et leur donner euh, euh, de de nouvelles aptitudes. ndongo yi dinañu bàyyeekoo fu nekk ci daara yi ak ci réew mi wutali ci lycée bi ngir yokk seeni xam-xam wala ngir mottaliku. maa ngi woon lycée Kennedy année passée première dama bëgg améliorer sama niveau pour rentrer et puis nekk en avant si sama camarade de classe aussi. Kolda lay jàngee mais dama pour vacances. tax ma ñëw inscrire cours de vacances dafa fekkee ni que euh, daaw second semestre bi euh, composé wu ma woon yeneen matières comme français anglais ak histoire géo nax ñoom ñoo nekk sama matière principale. léegi dama ñëwoon def cours de vacances léegi note yu may am yooyu ñooy remplacer sama composition. dama ñëw cours de vacances pour pour maanaam renforcer sama. sama études yi ndaxte dama amoon ay lacunes ci français parce que avec les grèves de sixième te dama tëb CM2 léegi dama ñëwoon renforcer sama français ak yeneen matière lycée Seydou Nourou Tall bokk na ci daara yu gën a am résultat yu baax ci Sénégal laata ubbite école bi cours de vacances yi dinañu ko wéyal ba ñaari fukki fan ci weeru septembre 2013. Ibrahima Juma Ba sant nañu la ba tey ci euh, xibaar yi euh, makkaat bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu promotion investissement ñu ne euh, bu nu sàgganulee liggéeyam dina jege lool ak bu APIX bu nu xoolee ni jamonoy doxee ak wàllu économie ak li mu laaj ki ko xamle di yi Seydi Ababacar Dieng nekk directeur laboratoire bu économique monétaire fële nekk tamit jàngalekat seetkat makkaan université Cheikh Anta bu Ndakaaru dañu koy lu mu gën ñu gindi ci euh, loolee ay kàddoom ki ko taataan Ibrahima kamara ànd ci ak Jaafara Ba. APIX comme amoon na ci APIX affaire investissement lay yëngu donc yaakaar naa ni dinañu lëkkaloo waaye ci ci ban fànn la ñu lëkkaloo nag loolu nañ xaar tuuti ba lu ñuy naan dëkk de répartition yi génn. li naan partenariat public privé mooy maanaam euh, sunu gouvernement di liggéey ak euh, benn entreprise privée. ci pour mën a defar ay ay yoo xam ni ni ñuy expliquer bien public. yoo xam ni ñu naan ay tali ay tali. ak wala raay bi wala yëpp loolu yëpp lu baax na ci kaw état bi lu muy génn ci xaalis du bëri mun nañ jël par exemple autoroute bu bees bi. ça veut dire que ni donc du di leb du leb du yokk borom pour def ko. waaye tamit bu yokkulee borom tam bu def ko tamit du du du yokk aussi impôts yi pour def ko waaye lu ci ñaaw en général mooy ki dëkk ñu gis ni def nañ ko yëpp yu ci bëri mooy yu mujj en général prix bi maanaam prix bi ngay mën a dugg ci autoroute souvent yu ci bëri dañuy gi ni dafay cher. et donc lu lu waral loolu nag mooy que ni entreprise boobu rek moom day nekk situation monopole moom kese moo fay nekk. maître Sidiki Kaba di jëwriñ bi wuutu Aminata Touré foofe ca wàllu yoon moom nag bi nu ko tabbee coow daal am na ndax ñu bëri dañu ne moom maître Sidiki kabaa da doon xeex ak ak yelleefu boroom ñaari tur yi ak soxna yi sëy eh, ci seen biir ONG islamique Jamra moom eh, amul yaakaar daal maanaam mu daal di tëddee njaaxaandaay maanaam day ji seex indi ay euh, leeral Adia Talla Yaya Diallo kaddu yi Sidiki Kaba yëkkati woon ci atum 2009 ci France 24 di layal góor jigéen yi ñu jàppoon ci mbaaw sulliwaat na yenn yi euh, coow li nekkur ci tàbb biñ ko tàbb si bopp justice gouvernement bi daa war a soppi nu mu gën a gaawee euh, charte bu bees bi di condamné góor jigéen yi kaddu yi Sidiki Kaba mu ngi ko yëkkati juróom-ñetti fan ci weeru janvier 2009 ci télévision bi di France 24 mu yokk ci ne député yi tamit war nañu xoolaat mbiru góor jigéen yi ñu war a sukkandikoo rekk ci liberté sexuelle nguur gi di bàkku ne day sàmmonteel ak démocratie ak ak yelleefu doomu aadama li mu war a def rekk mooy ñu dindi daan yi ñu teg ci ñi nga xamante ni dañuy mbooboo mbiru góor jigéen. bu weesoo kàddu yooyu teg na ci ci benn tribune internationale daal di yokk xar mi karaw mu daal di laaj ñu jox góor jigéen yi ak lesbiennes yi seeni àq seeni yelleef. tout nit bu nekk ak li mu mënte doon ak li mu mënte gëm war nañ ko jox gëdd sàmmonteel ak ak xam ak yelleefam mu nekk jigéen. xale walla leneen naam sax mën na nekk góor jigéen wala lesbienne kenn warul ñàkk fu laal ngoram axam ak yelleefam euh, kuréel bii di Jamra xelam naam tey na wante xamal na ni ci kàddu njiitu réew yi mu génnee woon ci ñëw bi Barack Obama ñëwoon Sénégal la ñuy sukkandiku dalul suñu xel mën naa jàpp ne tamit yëngaluñu ndax xam nga Sidiki Kaba yëkkati woon na fi kàddu wax ne ànd na ci ñu daganal sëy góor ak góor te xumtoowu ko daf ko wax publiquement président Macky Sall moo dem ca palais de la république dal di ne moom tànk mu ngi fi su mon magistère en tout cas kenn du fi daganal say góor ak góor loolu mu yëkkati nag mu ngi jógee ci làmmiñu koo xam ne moom la tubaab bi wax naan mooy incarner la clé de voûte de nos institutions boo dajale institution yëpp parlementaire juridique et cetera moom moo ne ca kaw bu waxee rek waxal na Sénégal yëpp kon nag loolu président Macky Sall wax ne tant que il est là du ko daganal mooy position officielle bu Sénégal kon nag position personnelle bu maître Sidiki Kaba itteeluñu. tàbb maître Sidiki Kaba si bopp justice ndax dina yomb ci moom ndax kàddu yi mu yëkkati woon ak nekk tamit kenn kuy layal ñenn ñu ñu jàpp si traque des biens ak yi nekk tamit kiy layal victime njiitu réew tchadien bi woon. Adia Talla ki teewal haut commissaire bu Nations Unies fi ci Afrique euh, sow jant euh, ñëw na fi ci Sénégal amal fi tukkib nemmeeku mu daal di euh, jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñooy kuréel gi saytu àq ak yelleef doomu aadama fii nee na nag dina leen jàppale ci li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi nga xam ne moom la moo am fi ci bi diwaan rawatina askan wi li ñuy jànkoonteel dañ ci ànd ak Pape Cheikh Ndiaye Diouf Alioune kuréel gi xeex euh, ak ak yelleefu doomu aadama yi tey nekk fii ci Sénégal suñuy xarit la ñuy mës a doon ñoom la ñu mës a àndal ci liggéey bi euh, ba tax na bi ñu nemmee ko euh, jafe-jafe yu ñu am ñu ne dañ leen di dimbali taxawu leen ngir ñu mën a jël place bi nga xamante ni moom la ñu woon fële ci ci lépp loo xamante ni day xeex ak ak yelleefu doomu aadama looloo waraloon nu ñëw fii tey ngir gën leen a taxaw ba nga xamante ni dinañ mën euh, amal seen liggéey nu mu ware qu'il a eu euh, pendant les derniers tey ci alxamis bi juróomi fan ci weeru septembre atum 2013 yemook màggaluk euh, ñaari ràkk ñu koy amal euh, fële ci Ndar Géej muy ab jéego bu euh, Cheikh Ahmadou Bamba amaloon foofee ca première capital bu Sénégal tey ji jullit yi rawatina murit yi dem fa di màggal bés bi du ñàkk ngeen am ci lenn ak télévision Futur Média ñu daal di ñëw ci tàggat yaram bu bàkk bi daanoo ñu soobu ci Sénégal euh, Ouganda ci gaaw bi lañu ko jàpp fële ca Marrakech Marrakech ca diwaanu Maroc foofe nag sunu gaynde yi ñu ngi wéyal euh, seen tàggatoo ñu ne nag euh, gaynde yi amal nañu loolee ñu naan entraînement maanaam tàggatu ngir waajal jongante boobee ba mu des Cheikhou Kouyaté di ab défenseur mu am ay gàllankoor ñu ne ci pooj bi dañ ci amaat yeneen lu ñu leer ak Maam Fatou Ndoye Mor xarma du ñàkk sunu xibaar yi ngoon yi ñu des ba tey ci boobi jongante diggante Sénégal Ouganda ak nga xam ne ab euh, gaynde la woon di ma Diop moom euh, jàpp na ne nag fi mu ne nii daal askan wi waruñoo am benn njàqare ci boobee jongante dañu koy teewlu ak Cheikh sat bu Jara Yaya Diallo laaj ak tontu dox euh, digganteem digganteem ak ñoom. Sénégal dajewul ak Égypte dajewul ak Ghana dajewul ak Nigéria dajewul ak Zambie Ouganda la dajeel pour quali dem coupe du monde dem coupe du monde nag ñu la Ouganda ngay dajeel ci yoon. joueurs yi sax waruñu leen wax lenn bu fekkee ni seen xel mu ngi dem coupe du monde dañuy jouer en équipe di joxante ballon bi bokk ko buñ ko ñàkkee wuti xeex ko buñ ko amee jëm ko dugali parce que di wut match nul sax dara wóoru ci et puis doo wut match nul contre Ouganda pour ne da ngay gagné ay gaanaaki ko di d'Ivoire non da ngay ñëw fubal sa fubal bu fekkee am nañ fubal bu ñuy fubal ñu def ko ci fula ci fayda xam ni réew la ñuy jouer moo xam ni ci yoon ñoo ko mën donc bu ñoo ko mën dañ ko koy wan parce que ambition bi mooy dem coupe du monde ñu wax ci leneen muy jeu francophonie bi nga xam ne ñooy gaynde yi dem ci boobule jongante xam nañu leen nga xam ne mooy seen entraîneur Aliou Cissé woon ñaar fukki gaynde ñoo xam ne nag ñaar ña nga nekk ca biti réew kenn ki Milan AC la yëngu di gardien bi di Seydou Sy keneen ki moom nekk ca diwaanu Italie di Ibrahima mbay ñoom nag bàyyeekoo nañ euh, fii ci euh, Ndakaaru niki démb yamoo ak àllarba euh, compétition boobu nag dinañ ko amal fan jàpp fukk ak benn ci weeru sattumbar eh, bi ñu nekk ca Nice ca diwaanu France ñu wéy wax eh, ci tàggat yaram ak football première édition bu mémorial Baye Laye Gueye amal nañu ko match de gala ba nag eh, biñ ko amalee ab victoire la jeexee ñi nga xam ne ay gaynde lañu woon ci bokk ci ay génération yu bëri ak ca nga xam ne ñooy olympique de Ngor benn bal ci dara ki nga xam ne nag moom moo amal boobule but di Mamadou Diallo li nga xam ne ñoo ko teewe woon délégation bu euh, groupe Futur Média bokkoon na ci ak yi kaskanu diwaan bay dañ ci ànd ak Cheikh Saad bu Jara Yaya Diallo ñoom tamit teewe woon nañu ko olympique de Ngor taxawal jongante bi ngir ñaari mbir dajale ñi fi nekkoon gaynde football yi ak sargal Baye Laye Gueye benn dirigeant bi nga xam ne dafa génn àdduna si biir saison bi ñu jege woon la quoi amuñu fayam vraiment lii nii bëggoon nañ ko def bu yàgg mais xam naa yàlla bés bi la mémorial a saa ñun ñëpp kontaan nañ quoi. man ñun ñëpp bi ñu annoncé kii bi ne benn kii pour paa xam nga ñëpp teew nañ pour xam nga am loo xamante ne dañ ko ko mën a indil quoi paa bi vraiment man suñu père la quoi. paa bi moom dafay yàgg nekk ngor donc génération bu ne mu taxawu la. lu ne defar génération yi aussi tamit donc mu nekk boo xam ne mu ne def ngor loo xam ne nit ñëpp ñoo apprécier li mu def je pense que euh, loolu rolu ñëpp ñoo war a def loolu parce que àdduna boo si nekkee nga nekk un exemple di def lu baax kon tey boo génnee àdduna war nañ la mën a defal lu mel ni teral la aussi. lii dafa nekk loo xam ne lu rëy la si man parce que tey bu yàlla defee tey ma dajale toutes les anciens internationaux de qualité de génération 2000 ba génération yu bari ma teg leen fii kooku ndam la succès la. gaynde yu njëkk yooyu ñoo dóor seen rakk yu olympique de Ngor benn si dare wane ni dese nan ba léegi daje bi boole gaynde yu génération yu bëri. ñoom bëgg nañ di ko amalaat. grand ñoo fi ne man booy xool peut-être maa si gën a nekk xale mais ñoom dañu yaatal football bi nga xam ne ñoom kenn du ko tudd te du leen ci boole booy xool te retrouvaille la dañuy sant yàlla quoi. ñun gis gisantuwaat génération yëpp ñëpp ah ñëpp am na ay écart d'âge yu mag entre ñun ay 2002 90 63 ñëpp daje nañ fi tey pour loolu. je pense que loolu lu baax la pour football. du yem si match bi rek parce que maa ngi xool saa yu ma ko mënee def at mu ne ma def ko bu occasion bi taxawee ma def ko parce que déjà li dafa nekk loo xam ne lu rafet la lu baax la parce que dafa rassembler tous les anciens internationaux ici te daf ñuy permettre ñu mën a gisee gën a mun a defarwaat gën a mun a waxtaan suñu biir pour xool nan lañ mun a avancer football Sénégal. dirigeant yu Olympique de Ngor ak njiitu dëkk bi sargal nañ Baye Laye Gueye bi match bi jeexee match bi tamit tax na waa Ngor yi gën a jege gaynde yu njëkk yooyu. Cheikh Saad bu jaxa Lionel Messi la ñuy euh, jeexale ak euh, papaam ñoom nag fi mu ne nii nee ñu daal euh, nekk nañu li tubaab naan en règle ci wàllu fisc fële ci diwaanu Espagne nga nu fekk baax ñoom nag fay nañ lu toll ci juróomi million ci euro bu nu ko xayma daal ëpp na ñetti milliards ci suñuy koppar Messi ak way juróom bu góor nag dañu leen a mettroon en examen li ko waral ñaar fukki fan la woon ci weeru juin bi nu génn ngir wàllum fraude fiscale ñu waroon kanamu yoon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre euh, dem gi du ko aju ndaxte fay nañ li ñu ameeloon fisc bu Espagne mbokk yi euh, fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru diggu bëccëg gi yeneen jataayu xibaar ak rédaction bu Télé Futurs Médias ngoon lay doon kàllaamay wolof ak nasaraan ñeendu jàmm